comme mhm. loolu mën nga ko jàppee kon une recul démocratique koo xam ne dafa ñaxtu dem ci euh, gris euh, palais mhm. euh, ñu jàpp ko def ci kaso bi mhm. depuis presque bientôt trois mois mënul fexe ba am liberté provisoire loolu jàpp nga ni itam lu lu war a am la xam nga kii Pape dama bëgg a wax ne que li nga xamante ne moom mooy mbiru gii Marius Sagna prison du lu ñu yéene kenn comme ni nga ko waxee ndaw la ñoo bokk génération il a ses am ligne de conduite am nekk ci mais pour son cas dama bëgg a leeral ne que la responsabilité pénale et toujours personnelle. Mm parce que tey am na ñuy naan ñu mu àndaloon lu tax ñu génnee leen bàyyi ko fa. Mhm. Babacar Diop xam naa ko bu baax sama grand la bokk na ci ñi ma formé syndicalisme sax à l'université mhm. mu mm -hmm. nekk liste blanche man ma nekk liste bleue. Mhm. ku ma jox cër la tamit. mosuma koo déggal prison c'était la première fois. Mhm. à part prison temps yooyu noonu grève ñu tëj la ñaari fan nga génnaat. Mhm. ñeneen ñi tamit idem mais Pape bu ñu waxalee yàlla rek te yàlla tax Guy Marius Sagna ñaata yoon nga dégg ay contentieux ak justice du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon. ah mais ça n'a bul wax ne ça n'a rien à bul wax ne ça n'a rien à voir si ça n'a rien à voir. non bul wax loolu. ci ci fait bii ñu ko jàppee nii. jàppandoo ko ak ñeneen. mais jàppandoo ko ak ñeneen. waaw bu fekkente ne nag danga am ay sursis ñeneen ñu mu yombee ci ñoom ba ñu génn du doon le pour yow. <laughs> question de justice la sax nag moi je suis pas pour commenter lan la. wax nga ci li nga bëgg wax ba pare mais li ma ci bëgg a wax mooy. <laughs> mooy loolu. bu nit ñu comparer lu xamante ne c'est pas comparable. Guy Marius Sagna a u toujours des dossiers à la justice. mais cause bi ko fa yóbbu nag. ci les causes bi ko fa yóbbu. Pape ma fàttali na ne ay étudiants APR fii la ñu war a dem ree réunion yeegir yu ñu jàpp leen tëj leen parce que dañu def violation loi loolu bu ko kenn fàtte donc ndem ñooñu noonu la mën a demee ci ñoom aussi assatuma Guy mari Sagna ak képp ku mu mënta doon ci réew mi giiri pale nga dem ne da nga fay taxaw ne da ngay manifester luñ la war a def. yow ku la fayoon milliard doo ko def parce que bu dul dara sax xel da koo nanguwul saay bu opposition demandé marche place bi nga xamante ne moom mooy euh, place de l'Obélisque ñu autoriser leen ko mais quant à aller faire une marche vers le, le palais dem ba ci gris loolu c'est provoquer un état man noonu laa ko jàppee. waaw ah, loolu loolu yow yaa ko jàppee noonu parce que nekkoo ci boppam xamoo itam bi muy taxaw ci gris bi lan moo nekkoon intention xëy na ah, c'était juste pour message am mën a passé la. loolu loolu am na ko mën a jàppee noonu. message moom bu taxawoon fungal mi sax mu yaa ngi fi efficace ba bëgg a lu waaye bëgga wax léegi ci réew mi ak foofu foo mënta ne dina am ñu la fekk tàllal la seen micro nga wax sa soxla dem. ok d'accord merci beaucoup madame le maire ma bàyyi la bu fekkee am nga message booy. booy <laughs> xanaa nuyu sama mbokk waa. parti yëpp. nuyu waa Sénégal nuyu waa agence nationale de la petite enfance et de la case tout petit jàngalekat yeeg mère assistante yeeg conseillère familiale yëpp. waaye nag particulièrement aussi la population de la commune de Diarère. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen di sant euh, di gërëm ñëpp di la remercier yow tamit. ci invitation bi di wax ne euh, ba beneen yoon. jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon euh, Thérèse fay Diouf moom la ñu dénk lépp lu aju ci case euh, des tout petits ak euh, petite enfance bokk ci parti bi di APR ñu doon ko recevoir tey ci seen émission faram fàcce ak.